jamono ji société bi xar kanam bu baaxul lañu ñu tappal woy taskatu xibaar bi ay at a ngi nii ñoom taskatu xibaar yi dañoo bàyyi benn gis-gis mu dal di ba law ci askan bi yépp mu mel ni bile liggéey dañu ko boole ci ñi nga xam ne dañu leen a jënd wala dañuy wilipande wala dañuy wax ci vie privée jàmbur ba noppi di salfaañe dal gi nekk ci réew mi maanaam bëgg koo yëngal lan lañu déggul ci bile presse dañuy defule ci kawam nu mu leen neexee bile xar kanam bu ruslu lañu tappal bile liggéey nga xam ne demoo ne mission wam kenn du ko naatable te it teguñu ko fenn moom la ñu wëyal ci langue politique bi ci seen syndicats yi gëmloo ko këru diine yi ñi yëngu ci wàllu aada ak ñi nga xam ne seeni affaire la ñuy yëngu ñàkk gëdd googu nga xam ne dañu koy fësal bés bu yàlla sàkk ci diggante presse bi ak ñi yëngu ci langue politique bi ñi yore wàllu koom gi ñi yore wàllu yoon ak it way takk der yi loolee moo tax ñëpp ñi nga xam ne dañuy sànni xeer bi la liggéey jàpp nañu ne taskatu xibaar bi nga xam ne liggéeyam mooy informer yar jàpp nañu ni dafa war a nekk ci liggéeyu ñi nga xam ne jamono ji ñoo yor nguur gi wala ñi nga xam ne ñoo yor koppar gi dangay ngay noppi wala ñu lay fitnaal politiciens yi ak affairistes yi ñoom di jëfandikoo ànd ci ak société bi xaalis ngir mën a gën a yàq image boo ne moom la ñu toppal presse bi ak woy taskatu xibaar yi fexe nañu ba xàjjale nañu yooyu les journalistes ndax nag dañuy jël ñenn ñi di ko dooree ña ca des kii dafa jóge pouvoir bi ak ñiy yëngu ci affaire yi kee moom opposant la ñu commencé ko xas ak beddi di tas di wàññi suturaam li gën a doy waar nag ci mbir mi mooy violence bi jëm ci wàllu yaramu nit ki ci wàllu xelam bi ñu koy teg bokk na ca tiitaange boo xam ne kenn mënta àpp ana fan la yem woy taskatu xibaar yi ñoom ci seen bopp di xool lu ñu mën a génneek lu ñu mënul génne léeg-léeg ñu gëmm seen bët ci yenn yi ndax nag moom taskatu xibaar bi mën naa dem kaso saa su ne mën nañu koo sànni lacrymogène mën nañu sax yegg ba ci koy duma te moo ne après la vie continue ba keneen ko ci war a topp te li ci gën a metti mooy état de droit wala sax ñi ngànk yoon danoo bokk ci bile jeu maanaam di salfaañe liberté bi nga xam ne am nañu ko ci bind ci filmer wala sax yëkkati seen kàddu jagleel ko ñi nga xam ne amuñu doole jamono ji benn kaaraange ñoom journaliste yi amatuñu ko rawatina seeni liberté ni ñuy tegee fitna ci kaw journaliste yi ci ni ñuy amalee seen liggéey jaaduwul ak fu mu mënti bàyyeekoo nag moo tax presse bi moo war a fexe lu luñ koy joxee gëddam ndax moom moo yore ci loxoom jumtukaay yu ñuy amalee communication de masse waaye tamit mu am xarañte ci lu muy def ak it maturité bu koy may ñu dégg ko ba noppi nag jox ko gëdd ndax mun naa mobiliser opinion publique bi ñu xeex lépp luy injustice sociale presse boobee nag dafa war a xam ne am na doole ndax benn pouvoir politique judiciaire financier mënta résister mën-mën ak xarañte mu bile quatrième pouvoir pouvoir boobee nga xam ne mooy mën a influencer dafa war a jëriñ ñu mën a defendre lu ñeel suñu àq ak suñuy yelleef waaye tamit suñuy liberté mu tegu ci dignité doomu aadama ci société boo xam ne dañoo libre ba pare nag am démocratie